teewlu ci Sénégal 7 point com dal leen ak jàmm xibaar bu bees la ñu am léegi léegi ndikki tey ci dibeer bi ki nga xamante ne rek moom moo di Pape Alé Niang di journaliste d'investigation moom rek la ñu daal di teg loxo ndikki tey jii nii. boobu la xibaar ñu ngi ko daal di jëlee rek bu ñu sukkandikoo suñu naataangoo yi nekk ci seneweb point com kii di pap Alé Niang nag ginnaaw ay bés yu weesu rek mu ngi doon def ay révélation ci li nga xamante rek moom moo di. si boobule chain am bu tuddu euh, Dakar Matin moom Pape Alé Niang nag ginnaaw euh, ba mu doon def ay révélation ñeel si li nga xam te rek moom moo di dossier Ousmane Sonko Adji Sarr Euh, si boobee jamono nag la ñi nga xam rek ñoom ñoo di les éléments de la sûreté urbaine euh, bu instruction bi nga xam rek procureur de la république moo daal di sàkku rek ñu daal di teg loxo kii di Pape Alé Niang moom patron site bi nga xamante rek moom moo di à Dakar matin euh, daal nañ koy yóbbu fa la nga xamante rek moom di sa commissariat central bu Ndakaaru ginnaaw nag ay fan yu weesu ay révélation explosive yi nga xamante ni moom Pape Alé Niang mu ngi ko doon def si dossier Ousmane Sonko Adji Sarr